moom ay message euh, libéré Ousmane Sonko la daal xëyee ñoo ngi koy nuyu moom laa yoon soxna Ibnu Ousmane Sonko itam ñoo koy nuyu Anta ñoo koy nuyu Abdou Fall itam ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax ah, awaloo itam fàttewuma la maa lay nuyu di la ak ñëpp ñi nga xamante ne yéen ñuy soog jël en cours ci waxtaan bi bokk ci nag yomb na da ngeen di woote ci euh, euh, mooy numéro bi nga xamante ne di mën a may ngeen mën a bokk ci waxtaan wi nga xamante ngeen maa ngi leen bokk na ci état de santé bu Ousmane Sonko ak ni nga xamante noonu la agent judiciaire bu l'état daal di dugalee ak procureur salaamaaleykum waaleykum salaam Jérôme na nga def maa ngi fi maa ngi sant yàlla baax naka journée bi ça va sant ñu ngi ziar aca bismillah ci waxtaan wi rafetlu liggéey bi merci beaucoup di kontaan ci yow di auditeurs yëpp ak téléspectateurs yi am na solo merci waa jigéen léegi dafa wax ju wax wax ju am solo quoi mhm. parce que suñu histoire dëgg ni mu demee. Mm-hmm. waxuñu ko quoi. waaw lu bari suñu histoire dañu koy wax ni fekk du dëgg na mu demee dëgg dëgg waxuñu ko. Mm-hmm. loolu mooy suñu problème parce que tamit euh, ni jaar-jaar yi demee yépp comme ni mu ko waxee am na ci loo xam ne que ñu ñu koy tegal di ñu koy wax te fekk du dëgg. d'accord euh, war nañu xoolaat suñu bopp daal tegu ci yoon wu jub. d'accord léegi te bàyyi naxante bi. Hmm. léegi suñu ñëwee ci euh, ci kaw usman Sonko ba mi nga xam ne itam état de santé vraiment ci euh, dégg-dégg bi ñu ko mujjee am euh, moo ngi woon sax ca ca soins intensifs maanaam réanimation sax lañ ko lañ ko lañ ko dugale woon te lépp nag xiifal gi mu nekkee moo ko ko daal di moo ko ko daal di yóbbee ndax bi la yoon itam Ousmane Sonko mënul dakkandi greffe bi rek une bonne fois pour tout wala jàppoo leen loolu du solution. mais Ousmane Sonko dañ ko tooñ mais Sénégal ci boppam ñu dul àtti dëgg Ousmane Sonko lan la def ba ñu mën ko bañ ko bañ téye ko di ko tëj kaso lan la def lu dul benn régime moo jël doole ji di ko jaay doole ndax lan am na ambition nit ñi bëgg nañ ko léegi nag comme li mu li mu ñu tegal jàmm jooju mu ñu bëggal mm-hmm. ñii fi nekk nag loolu la ñu bëgg xañ Mm-hmm. ak seen lobby yi loolu rek la. Mm-hmm. moom fi ñu nekk nii bu faatu woon sax ñoom dañuy kontaan. ah déet déet ah non <laughs> quand même. waaye maa la ko waaye <laughs> eh, Ousmane. mais mooy dëgg Ousmane sax lu mu def bañ dëkk ci tekk kaso. ah mais loolu ëpp naa xalaat de ah man nga yaakaar naa su nekkee sa noon sax sa noon si nga gën a bañ kañ xanaa kañ. allo ah ma ne allo lan la def bañ tekk kaso. ma ne ma ma ne kañ xanaa yow su nekkee nit ki àlloo ko bañ bañ kañ. doo ko yéene faatu wala. alo yi. allo. alo waa maa ngi lay dégg sax de régie régie euh, wax leen ko mu mu. allo allo oui maa ngi lay dégg sax de. maa ngi koy dégg donc. allo maa ngi koy ah. wootee régie. coupé ah, après yow yow <laughs> oui man. waaw. xanaa yow yoroo ligne fixe boo xamante ne am am nga kii bi wifi bi. Euh, bon te te war naa ne bokkul sax de fi fi bi di jaar ak fi téléphone bi di jaar bokkul sax de. Ah, en tout cas bu fekkee yow ak fibre fibre fibre baa branché nañ la ci fibre bi nga am wifi nga normalement warut am coupure yi quoi. gars yi ñooñu réseau bi rek <laughs> xam nga fii moom chaque deux jours gars yi envoyé le message. waaw waaw ne réseau bi. jot. jot nañ jot jot nañ kii bi jot nañ message yi quoi pour vous dire vrai. donc pour ça fait vraiment. Euh, on ne sait pas ndax travaux yi ñuy def euh, ñun côté bu ñu nekkee dafa am ay travaux yu am solo yi nga xam ne moom la ñuy réaliser on ne sait pas ndax ndax du loolu moo impacté vraiment euh, réseau côté côté internet bi mais bon am na ay jafe-jafe mais mais soo wootee directement nag la plupart day day jàll correctement. waaw waaw direct direct bi moom day day jàll ko waaye léegi man day jël sama crédit bu bari quoi. waa li ma la bëggoon laaj mooy yow mi kañ nit ki ak. loo ko mhm. ñàkk jubóog moom ak xëy na sax ñàkk ànd ak moom ak sax xëy naa bañ ko entre guillemets mais doo ko yéene kañ xanaa mu faatu. ndax kooku am nañ njaboot am nañu. yaakaar ci moom ci ci ci. waaye yow dundin. ñaata dee ci ñaata dee ñaata jeunes ñoo dee. ana Didier Badji ana Fulbert Sambou ana Mancabou da nga gis ñu def ci benn enquête ana ana Mariama Sagna ma lu rey fële ñaata ñoo ne ci kaso bi gis nga ñii. daf leen a jaral lu ne ak système bi ak lobby yi surtout lobby politique religieux yi nga xamante ne système bi la ñu bokk ni Ousmane Sonko mel nii ni ko yàlla def ñu bari bëgg ñu bari bu ñu sañoon mu dee. Ah, man maa la wax lii. moom looloo am. d' accord léegi maintenant suñu suñu suñu suñu euh, suñu jugee foofu noonu parce que am dossier bi nga xam ne jamono ji aussi moo moo indi daanaka sax euh, coow li yëpp mooy euh, la xewoon Ziguinchor si Faye jël ndogal ñu war koo appliqué DGE toog ci ne du jëfe la ne mel ba démb ñu xëy ne ki nga xamante ne moo di Yoro Moussa Diallo nekk agent judiciaire de l' état finalement déposé na recours ngir rek ñu daal di annulé wala sax nee na ndogal loolu nga xamante ne cour d' appel bu Ziguinchor jël na ko. gis la. Macky la waxoon. mu ne dina def tout pour faire respecter la la la lu dogalu justice du loolu la waxoon. Ah, waaw ci discours ba mu koy wax waaw ba mu wax ni def troisième mandat boobu lu jëm ci Ousmane waaw boobu ba mu koy wax li jëm ci Ousmane Sonko taxoon tong moo taxoon mus ko Sall nit la koo xam. aywa mhm. aywaay fi ligne fi nga dawee baaxul de nee na ko fi mu dawee baaxul de. allo ah yeah. malheureusement <laughs> malheureusement ligne bi ligne bi daw na ñoo ngi koy jégalu bu baax a baax ah, di ko jaajëfal si ci ni nga xamante ne noonu la bokkee waxtaan bi je pense que régi li ñu ci doon ci waxtu suñu ko matalee donc euh, mën nañ yëkkati jotaay bi lu ko mooy itam ah suñu amee keneen rek daal di koy euh, ah ngeen may ma euh, deux wala trois minutes rek ñu àggali wala wala régi xaju ci. régi su ci xajee rek ngeen wax ma su ci xajul itam xam naa ñu euh, jaaree fi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñoo doon seetaan euh, moo xam laal yoon mi nga xamante ni seet en direct moo ngi ci ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu a baax allo ma daaneel parce que ligne bi neexul quoi daa d' accord allez-y allez-y recours boobu ñuy def xam nga c' est pas suspensif mm-hmm. comme que lee dogal na juge bi dogal na li ñu waroon def mooy jëfe mm-hmm. mais DGE il mm-hmm. reçoit des ordres ñii nag bu ñu la ñooy élec ñooy organiser élection xam nga ne duñ ko teg ci yoon. Mm-hmm. donc ñoom amuñu benn crédibilité li ñu war a wax mooy opposition bi taxaw ministère de l' intérieur wartul organiser élection yi. d'accord ñu wutoon organe indépendant mu organiser élection parce que ñii li ñu yaakaar mooy sàcc. Mm-hmm. mais élection yi tegu ci yoon xalaatuñ ko sax. <laughs> li ñuy def nag jaay doole la nag mooy sénégalais yi la tegul ñuy nit sénégalais yi nag ñoo war a jël suñu responsabilité. wan na leen moomu leen réew mi mais ay ay ay euh, DGE ay certains magistrats ak ay euh, agence judiciaire de l'État kooku la mu waroon toppatoo mooy bu Sénégal amooy contentieux ba xam ne dañ foor a ñàkk xaalis mais un gars boo xamante ne moo juste lamal problème lu ci seen yoon Ousmane Sonko donc mooy seen problème Ousmane Sonko la ñu bañ Ousmane Sonko dañ koo bañ bu ñu sañoon mu dee. ah déedéet waaye nag yàlla li na nam ci doomu aadama waaye moo am bu jarul ragal ay eh, Ousmane Sonko amul ko deful dañ koy def nii yëpp yow ko ci mu dem ci kii ñu jàppootaam toj lu ne ko def. Mm-hmm. lu ne lañ ko def xam ne bu ñu amee occasion bu ñu ko rey dañ koy rey. Ah, mais nag yàlla noppi naa. Ah. Mm-hmm. nous avons un état boo xamante ne defuñu lu xamuñu loi xamuñu règlement jaay doole moo fi ne. Mm-hmm. mbajam kanam nag borom a koy fajal bopp mooy Sénégal yi ñoo war a jóg faire face seule la lutte libère. ñu jëlee leen fi toppaleen. Mm-hmm. jëlee leen fi toppaleen ñi nga xamante ne ñoo doon ñoo complot ba ñu rey fi ay nit ñoo ñu jàppaleen ñu sàcc suñu alal ñu jàppaleen. d'accord li ñu naan ko aj day bañ ku teen loolu moo tax ñu bëgg a accaparer wu ci mbir ñi parce que xam nañ li ñuy def. Mm-hmm. dañoo sàcc dañoo rey dañoo def lu ne moo tax ñu bëgg ci accaparer wu léegi nag sénégalais yi ñun ñoo war a jóg jël suñu responsabilité. Mm-hmm. seule la lutte libère. d'accord Ousmane Sonko dañ koy jaay doole deful dara waxul. Mm-hmm. waaw dañ leen a dénkoon jot na delloo leen suñu mbir yàlla yomb na. d'accord merci. waaw ah, loolu yombul. <laughs> war na war da dee xaaju daal di xaaju ne du ma. waaw mais lan la maa la dénkoon. <laughs> Eh, delloo ma ma seet ku ma neex ma jox ko. d'accord merci. mais nga ko def moo mel. merci ñi ñoo baax doole. kon dan coow ñoo ngi merci merci kontaan ci vraiment di la jaajëfal euh, ci li nga xamante noonu nga bokkee waxtaan wi xam naa nag ci yow la ñuy ndarkeppee euh, li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee Régina Gomes euh, merci d'être actuellement en ligne ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax a baax a baax moom nee na bon rétablissement leader Sonko loola daal di bind ci message am laal yoon moom libéré Sonko la daal di gis ñoo ngi koy nuyu ñoom ñaan ñëpp ante si itam ñoo ngi koy nuyu Abdou Fall di ko nuyu di ko jaajëfal di jaajëfal itam Awolo Ibrahima Pleya mi nekkoon ci line bi depuis euh, début waxtaan wi vraiment maa lay jaajëfal Aliou Thiaw itam fàttewuma la maa ngi nuyu di la ziar ak ak ñëpp xam ne vraiment jot nañu woote ngir bokk ci waxtaan bi Binta Sarr fàttewuma la maa ngi lay nuyu Flaco 27 maa ngi koy nuyu itam Baye Mamour Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jaajëfal ak ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñoo ngi doon ci euh, chat en direct di interagir ci biir waxtaan wi ah Régina nee la lutte continue et la victoire est certaine voilà di ko jaajëfal yéen di jégul ci ñi nga xam ne vraiment jéemoon